waaw salaamaaleykum ma ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tour ak sa sant di nuyu bu baax population keur Massar Nord bi yëpp donc euh, man la sen dom sen jarbaat Adama sar ki nga xamantene si mo doon représenté la coalition yew Askan Wi dans la commune de keur Massar Nord et nouvellement élu également dans ces scrutins qui vient de se dérouler. waaw jotaay tay bi nañ ko wootee tout d'abord pour féliciter population keur Massar bi nga xamantene jox nañ ñu confiance wolu nañ ñu. bu weesoo loolu également ñuy wax ni rek Kër ma saar benn bopp la kenn mënu ko xarñaar ñaar dañu nekkoon si ay jongante yi nga xamante ne si ay jongante yu am solo la waaye li wóor ba wóor mooy ñun ñëpp ay doomu Kër ma saar nañu donc euh, li nga xamante ne si tey jii ñoo ngi koy def mooy woo askanu Kër ma saar

liggéey pour entrer Kër Massar parce que ñun Kër Massar rek moo ñu ñor. waaw victoire bi moom euh, waruñu ko parce que si commission bi nga xamantene moy def décomptage bi au niveau de la mairie de Malika commission bi paré nañu. et il y avait la présence du président de la cour d'appel de Dakar moy le sous-préfet moo ngi fa def nañ suñuy compte paré nañu raw nañu la coalition Benno Bokk yakar donc coalition Yewwi Askan Wi lu ñu mën wax moy jël na ndam li officiellement parce que commission bi pare na suñu plénipotentiaire bi nga xamante ne moo nekkoon foofu pare en présence de la présidente de la cour d'appel compte nañu voix yëpp coalition Yewwi Askan Wi rawee na 467 voix coalition Benno Boko Yakar. donc euh, gis nañ bu baax ci réseaux sociaux yi ku nekk di wax mais loolu lu jaadu la ci politique parce que politique tamit dafa am li nga xamante ne ci moom la wax la bataille médiatique loolu c'est normal mais pour wax waa Kër Massar yëpp ñu dalal seen xel PV yi nga xamante ne si jot nañ ko mu doon loo xamante ne lu officiel la coalition Yewwi Askan Wi raw na si élection yooyu nii te raw na coalition Benno Bokk Yaakaar écart bi nga xamante ne mën na 467 points. waaw liggéey bi moom mun naa ne tey tey tey jii nañ koy commencé parce que ñun lu ñuy wax rek mooy du ñu feetu feet bi kañ lay doon bu ñu demee ba jeexal suñuy mandat ba 5 yi jeex. ba nga xamante ne suñuy résultat wan nañ ko population Kër Massar ñun si boobaa la ñuy namu si boobaa la ñuy feetu on va travailler avec tout le monde Lepp li nga xamanteni ne si intérêt Kër Massar la rek ñun dañ ci taxaw dañ ci taxaw bu baaxa baax liggéey Mo sam euh, moo tax sànq wax naa ko samay cadeau. Néna ñepp ñëpp lañuy woo ñu bolo doon ben parce que ñun li nga xamanteni ne si mooy ñor du lenn ludul dul intérêt Kër Massar te si loolu lañuy nekk si loolu lañuy ñuy dox.